Sénégal buñ ko mokkaloon coono du jeex. ok tàkk. wa anna al masajida lillahi mhm. pour man amatul Sénégal. yàlla bu newoon cëpp Sénégal ci mbedd lay fanaan. ndax jàkka yëpp am na dàkkante. jàkka yi jiw jàkka yi jiw jàkka yi jiw. waaw neegu yàlla. nekkatu fi nekkoon. naka lay naateeku. du naat hmm? de. bu jamono neexee poos fees yaram feex jërëjëfee sëñ bi sa yaram naqari poos amul dara cey yàlla. nu muy naatee. du naat de. la in shakartum. la asi yàlla day fen. boo santee ma dolli ah mu ngi doon <laughs> <laughs> ah, waaw <laughs> hmm, mu ngi noonu de. foofu la Serigne ñàkkee chance. moo tax Serigne kenn du ñu néewee sukk ci bàmmeelam ne yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko. Hmm. lu ñu lu muy dégg yàlla na yàlla yokk leer. Mm-hmm. xanaa balaa dara mm-hmm. leer njëggal am. leer la de loo ci teg taas ma ci barkeem boo taasoo ci barke koo bu amin ja nangoo foo jëm. Mm-hmm. dana waar dana waar de. sallallahu yàlla na ko yàlla leer. da ngaa xam ci leer lu mu xanaa balaa dara leer njëggal am. ما اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجما كاسبة نعم وأي مسبوب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا والله العظيم ذكر بني دينا ويا جامو